wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha min ash-shaytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati shayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruun laa hawla wa laa quwwata illaa billahi al-'aliyyi al-'aziim yaa hayyu yaa qayyuum yaa zal jalaali wal ikraam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbokk jullit yi di leen nuyu nuyub jullit di nuyoo bu sell di nuyoo bu lislaam di ñaan suñu borom subhaanahu wa tabaaraka wa taala mu defal leen jàmm ak tawfiq mu mel ni dañuy dellusiwaat ci suñu jotaayu yóbbalu ndaw ñi ci téere bii ñuy wax tasawwudu sixaar mu mel ni jàngale woon nañu suñu bunt bu mujj ci gëm malaayka yi ak li aju ci gëm malaayka yi kon nag sunu bunt bi ñuy jël si tey jii incha allahu rabbi mooy bunt bi jàngale téere yi sunu borom subhaanahu wa wàcce ci ay yonenteem nan lañ koy gëmee ak ci ab lim ñaatay téere la kon mu mel ni kon sëriñ bi daf koo toftale rek comme ni ko sunu borom toftalee ci alquran ba mu waxee ne kullun naamana billahi wa malaikatihi daf cee teg wa kutubihi kon noonu rek la ko sëriñ bi toftalee faslun lii ab bunt la wala ab dog la fil kutubi ci téere yi asamaawiyati ya ji ko jug asamaan imaanukum seenu gëm bil kutubi ci téere yi at tasdiixu mooy dëggal bi annaha naka ñoom inzaaluha seenu wàcc xaqiiqun lu dëggu la wa annama ak la nga xam ne fii haa nekk na ci ñoom maxan mbooleem seen xaqun lu dëggu la bilaa sakkin ci lu amul benn sikki sakk fa man saddaqaha ku leen dëggal naa la kon nga amee alxulaa kawe kon nag téere yooyu suñ borom wàcce ci ay yonenteem moom la bi wax kat bokk na ci gëm yàlla nga gëm ne téere yi kat lu am la nga dëggal ko bañ koo sikki saaka benn yoon te boo ko dëggalee saxal ko nag bañ ko sikki saaka benn yoon suñu boom dina defal ak kawe mu ne xaddaduha seenug lim ñoom téere yooyee xaddun téeméer la ak ñeent ndax xaaf téeméer lay lim daal ñeent muy téeméer ak ñeent wayaa un fukk unzilat wàcceef na ko min ha ca ñoom ala aadama ci sunu maam aadama fii maa ca la xam ne xadd sabat sax na nuunun juróom fukk ala sita ibnihi kay doomam summa laamun topp fanweer ala idrisa ci idrisa yaa fukk ala xilli ci xaritam ba mooy ibrahim wilaa ci toftale kon loolu mooy téeméeri téere yi wàcc nañ ci aadama fukki téere wàcce ci six sa mi nga xamante ni moo nekkoon doomu aadama juróom fukki téere wàcce ci Idrissa fanweeri téere wàcc ci Ibrahima xalilullahi fukki téere loolu nag boo ko boolee mooy téeméeri téere téeméeri téere yooyu kon moom la ñuy wàcc ci yonente yooyu séddal leen ko noonu téere yi nag buñ ko waxee dangay ngay bàyyi xel ne téere yooyee kat suñu dafa am jaam bu mu doon yónni muy Jibril mu koy indi ci yonente yi di leen ko sax di leen ko sax ñu koy ñu koy xam bu ñu paree nag ñu bindloo ko ci ay binduwaay di ko jokkalante ci kaw suuf ni nga xamee ne alxuraan karim yi bi muy ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Jibril moo ko doon indil di ko ko sax mu koy bindlu ci ay téere ci ay téere ak xeet yu noonu ba mu fi jógee nag ci ginnaaw ba wuy ji suñu borom subhanahu wa taala ci lañ ko door a dajalee def ko muy ab téere bii nga xam ne ni moom nañuy ñuy ci kaw suuf benn téere rek lañ ci indi ci ay aliwe mooy tawreet moom lañ jox Muusa mooy benn téere bi nga xam ne ci ay aliwe lañ ko indi la jógee ci yàlla ñëw waaye bu dul boobu rek téere yëpp noonu rek lañ ko indee ci yonente yi alayhi salaatu wasalaam kon loolu mooy téeméeri téere yi tawreetuha tawreet seen xadextawaaha làq na ko muusa muusa injiluha injil seen xadextawaahu làq na ko isa isa summa xawaa topp mu làq zaburaha zabur seen daawuda daawud kamaxtawaa ni ki mu làqee furxaanaha furxaan seen almahmud ku ñu sant ga mooy yéen de wa sallam kon nag ñeenti téere yi ndax waxoon na la fukk la ak ñeent kon fukki téere yi waxoon na la ci ñim ko aaj wàcce kon ñeent yii mooy ñeenti téere yi nga xam te ni wàcce na ko ci yónente yi benn bi mooy tawreet mi ngi ko wàcce ci jox ko Muusa alayhi salaatu wasalaam benn bi mooy mi ngi ko wàcce jox ko Isa alayhi salaatu wasalaam benn bi mooy zabur mi ngi ko jox Daawuda benn bi nag mooy bii mujj ci kaw suuf mooy alquranul karim moom lañ jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy téere bi gën a kawee ci téere yëpp nag yi boole téere bi nga xam te ni boole na téere yi ñu lim yëpp ya ca la ca nekk boole na ko ci moom ci téereem boobu muy téere alquranul karim kon mel na ni moom boo ko gëmee te jàpp ko lépp lu ci nekk lu nekk ci téere yooyu yëpp di ko dajal kon nag téeméeri téere yi njëkkaloo lim moom da mën ngaa lim ne téere la yoo xam te ni suñu borom wàcce na ko ci ay yónnenteem muy téeméeri téere waaye ñeenti téere yi ñu mujjee lim nag da ko war a ràññale xam ko mooy yi mujjee lim mooy tawreet ak injiil ak zabur ràññee ko xam yónnente yi ñu ko wàccee ci ñoom ñu bàyyi xel tamit ne téere yooyu yëpp nag bu nekk mooy ñetti téere yi ñu njëkk a lim ginnaaw alquran bu nekk ci ñoom ña ko suñu boom wàcce ci ñoom defaat nañ ci seeni coobare ba bari soppeeku na ci yooyu kon mën ngaa gëm ne téere yooyu moom lu suñu boom wàcce la waaye nag soppeeku gëm soppeeku nag du caagaay nag koy topp alquran rek la ci suñu boom wax ne ci alquran daan ne moo ko wàcceel boppam te moo koy sàmmal boppam nga xam ne moom na mu ñëwee noonu na noonu la ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee noonu lañ ko bindee ci téere yi dara soppeeku wu ci dara wàññeeku ci dara yokku ci tamit kon mooy téere bi gën a mag ci téere yi muy alxuraan kay kon mu ne xale yi mu yàlla na nekk ñoom asalaatu dolli teral wa salaamu ak dolli wóolu man xabbahum feeg ñu ngi leen bëgg raba wala doon ñu léegi asalaamu dolli wóolu kon nag mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ko ñaanal yonent yëpp daal di wax nag feek suñu borom bëgg feek suñu borom dina leen bëgg suñu borom bëgg googu mu leen bëgg dañ mukk kon loolu ñaan la yoo ni nit ki daf koy ñaanal nit ci ci xool li nga xamee ne mënta nekk mu ñaanal ko ci ngir bëgg ñaan googu sax ba faw kon foofu la yamale bunt bii nga xamante ni mooy bunt biy jàngale gëm téere mooy bunt biy jàngale gëm téere kon loolu daal mooy suñu bindub tey di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala defal ñu dégg ak topp defal ñu tawféex defal ñu mujj gu rafet defal ñu lu gën ci te dëppale ko lu ñu bëgg ñu ngi siyaare mbokk yi xam ne dañ koy teewlu yëpp di ñaan suñu borom defal ñu aw yiw te boole ñu yëpp. ñu ngi leen jox dig dëggee ci beneen jamono insha allah rabbi in uridu ila al islaha mastata'tu ma tawfiqi illa billah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sëriñ bi doon sëkk tey ak ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal